have. wàllu opposition bi lée yaay may ma ñeex Mamadou Lamine Diallo day ci daal xam naa yéeneem daal na bu ko maanaam na jàpp opposition bi kon daal di koy nal ba moom moo ko laa lay wax ni le daal di koy dëgaañee réduire l'opposition à sa expression waaw ma la Macky Sall na bu ko dee déedéet Macky di ndaanaan du moroomu opposition bi de ah. Mamadou Lamine Diallo ne dama ne Macky Sall ci boppam laa lay wax nii comprendreul ne xam nga lan mooy démocratie il faut a Sall day waaw dama ne la mu sot na fee woote dialogue laa la wax li tax muy woote dialogue du dara lu dul féewale opposition bi kese kese ba mu fi njëkkee woote na kon maanaam dialogue am googee waaw waaye buntu bu mu doon yóbboo Karim Wade kon bitim réew gàddaay loo ko transféré ko la doon wut ginnaaw ga la woote waat nag maanaam beneen dialogue day lu tax wàllum parrainage bi rek kese ngir seeg na candidat nga xam ne kon ñoo war a bokk ci élection présidentielle organisation élection locale yi laa la wax te gis nga élection présidentielle yi day waaw conseil constitutionnel ci boppam kon moo doon jot nag ak a jël wàllum signature yi waaw waaye élection locale yi di ñëw day commission de réception bu candidat yi ci boppam kon moom mooy jot signature yi day sénat bee supervisé waaw ci teewaayu mandataire liste waaye nag gis nga wàllum élection ak wàllum parrainage day moo gën a compliqué élection présidentielle yi sax laa wax parce que yee gën a bëri fuuf ñolle laa la wax jëlal ma exemple 2014 rek te gis nga 2019 ah, njortees nañ ne mooy gën a bëri laa la wax te bu ñu sukkandikoo na ci loi ci article ngir nga bokk nag ci élection locale yooyee moo xam parti politique la coalition la wala boog indépendant yi waaw gën a néew ñëpp ca département ba day war nga faa am gën a bëri day te loolee it mooy amaat communes yi de un pour cent gën a néew gën a bëri maximum un virgule cinq pour cent yéeni kaay ma jamal jaa ngi ne loolu kay mooy mandargaal ne dama ne la ngir élection locale yi rek waaw daal di càmbar nag xool wàllum signature yooyee dana mitu lool waaye yow nga ba caa toftal nag wàllum élection député naan da ngay couplé loolee mënul ne xanaa xanaa ñu indi nag ay copti kon ci wàllum loi bi balaa weeru décembre di dikk waaw Moussa Cissé nekkoon fi député ci tribune yéene ne gis nga Macky Sall day opposition bi la bëgg a nelawal yàgg a nelawal le quotidien yéene kaay ñang patiti patata loolee amul deux mandats point ndayu mbi ligi ci boppam kon di président Macky Sall day waaw nee na woon mandat mënatul weesu ñaar ci mim réew loolee lijjanti nañ ko bu yàgg la yàgg laa la wax te man ci loolee laa ne man Macky Sall kenn mënu fee weesu ñaari mandat man dee bis bu yàlla dogalee sénégalais yi daal may falaat waaw sama juróom-ñaari at génn ak juróomi at ba may dugg pare daal dem Seydou Gueye porte-parole gouvernement bi day noonu nit la waaw nee nañu ñu ngi a waaje jëfal boroomam ay fan yu néew a ko dese ñu suul ko day bu dee nag am na ñenn ñoo xam ni kon perte nañu pees la AFP de demal leen seen bopp ngeen bañ di la nga amu rek Moustapha Niass ak Tanor laa ñooy perdant yi parce que waa AFP day waaw teel nañoo yëglu xam le nañ ne 2024 dañuy am candidat ci boppam waaw yéeneem daal mooy delluwaat seen kër dajewaat ak nag ay frères libéraux kon nag daa ni moom Macky Sall mi laajte looloo jar a laaj tey suñu yi lee Dakar Times ne Karim si day nañ leen ci kaso bi waaw te waa PDS yi xam le ne danañu dugg nag maanaam kon ci gouvernement bii di dikk ñamewuñ ko maa la ko ma ne la ëpp na weer ay Karim si yoo xam ne kon nañ leen a tegoon loxo ci diwaanu Géej Waay gëlee Babacar Assane waaw Salif Fall ak Naar Fall ah. te ba léegi nii la kenn xamul lan lay def ba ñu teg leen loxo dugal leen ci kaso en tout ba ñuy ubbi quotidien ne DPDS kay fi mu nekk nii nag ñoom ñooy